kadi Dal moo bëri ça kadi saf le C'est assez Équipez-vous à petit prix. Sen Gold, une nouvelle vision de la bijouterie. Oh, royal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 toile africaine. Pour vos tenues de cérémonie, vos tenues de soirée et autres, une seule adresse. Showroom Héritage Couture à la zone de captage rond.emg ou sur internet www.héritagecouture.net matidi.com. Pinot Fashion, Ara, Babs VIP, Adamso by Nile Ideal Star M60, Fatty Prestige, Yamina Collection, Polel, Ubi, l'horlogerie sénégalaise, Ima Boutique, le Pop Shop. Tapu no satan xew ma xamul fu ñu koy wërigee xanaa xew mi danga fexe bu mel ne xew bay paase rek de ko mel ne li ma ci gën a metti mooy waa ji xaw ma turam xaw ma santam looloo jaaxal ñëpp waaye man nag seenum xew dama cee sax ndaa def ndànk ndax depuis ba ma bu sa dóor yu rëy ya ah, sa moom sa xarit la ay taw ma benn xale bu réew de ah, sa xarit la xale bu réew man aw ma aw ma ak moom affaire xool ko ñuy calax di koy kan ci noonu ànd ak espaket tam salaamaaleykum maam bi dana nga def eh bul ma waxati maam de munuma jur sambay ba nga nana maam bint dégg nga. joxal yow mu jaalo man damay dem de. wa ma re yow da nga do nuyo me re ya tal li nga man damay liggey de yen ku tok ngeen da tardé ku liggey ngeen bëgg ka tardé. yow ba nga tardé yag na. yow la nga wax yow mère al ma mané ba nga tardé yag na. ki ni may def motax amul yaram. muy nuro kay defal ma dal yoy wa jank démb de meddim yeb gisuma ci xol na ci ba son ba du won dara. dara de dañ ma pinde rek. ah ba jàmm nga may waree. <laughs> ni ngay ñàkk kes. Ah, maa ngi jégalu. xam nga ne jàmm laa lay doyee wuy ma fii waaye yéen seen xew yi moom moom fu mu toll. ban xew. yow sa xew bàjjen bii nga ban xew. ah fàtte woon naa xew boobu sax takk bu ndaw boobu rek. yow sa bàjjenee ku koy takk sax. kenn ku góor moo koy takk. déggal ma ni waayew yow kooku bu ko góor takkulee ku koy takk ñun soo gisee ñu lay laaj ndax paa la wala grand wala ku am xaalis wala ku amul xaalis. ay waay loolu man wóoruma de ah ah waa ma waa sama maam moom lu muy rey ci xew bi ah sama mam dafa ni xew bu ndaw la rek xaa ñu rey bu jigéen béy <laughs> reewa na gaa ngoog xew moom kenn du fa rey béy ñu rey béyoo ñu rey gileem yooyu sax nag ba tey baal xam nga nu ma lay laaj ji nan la sant kooku de dii la sant dii lan koo dii nga wax yow yow eh waaye diikon boo koy tag yow nan ngay def léegi. xanaa taxaw fa di diikon di diikon ba waat. wa mu duwal mu rok ton nga tok fa di ko ton ba ay yar fek ñu ba nga ndërmel. allo. si suk tay ni ma lay dege mom neex na ma torop kontaan na de. a Bintu baté ya, nga nak de. <laughs> no xam naa tonton Ibou mo lay topato loolu mom lu leer la dina ko yone xaliss sax nag dama sey kontaan. mais sa tonton suma ma toppatoowul nu muy def daf ma delloo teraanga rek gis nga jeeg dëgg dëgg macha allah lu muy gën a jëm mag mu yokk doole. ah cum ak maa bëgg yii. bref Serigne Kunta yónni na waayam ji moom nekkul Sénégal jamono yii lim la hmm. yónnee nag mu ngi ko jëlee ba frontière Mali. ca bambara ya la loolu lu koy dindi. faa sérieusal tuuti waay. <laughs> Xalil mu ngi nii de. waa kii du sama yaay bopp. mon fils. <laughs> namm naa la mu maa la raw mon fils. mbaa rab baa ngi lay toppatoo. kan faa. taay daa bàyyi loxoom. wax dëgg yàlla bu yóbboo nga dimbali ko de. loolu de du yoon. dina gën a metti si yow amul problème d'accord ça marche. bisous Allô ma. Fa nga ma dé. Luma la doon wax légui ci sey. Ma Xalil yow la bëgg wax tu rek su ko défé nga tous les matins fi di mo coacher nan ma ay si sa. lo ba ci nga ko <laughs> ma après bisous bye ok ça marche. yow kañ nga commencé sos yow. dëgg laa wax di tay dangaa bàyyi Bibi, loxo waxal rek bébé maa lay dégg sa tontu ñàkk na keesa de booy dem de Boy! waaw wuy ma kii Bright Party yow lay laabe waaw man dama bëgg demal nga yow say bët neexul nga dangay dawal guddi. wuy ma yow mii yaa bëgg di ma topp fu ma dem nga topp ma xalil yow comme sama génn xalil ah. wata wat eh, c'est ça ouais tu insistes. xel ba bu ma woo au secours dégg nga. waaw baax na. t'inquiète loolu du si am. merci mon cœur. Eh, jaajëf salaamaaleykum. maaleykum na. man mu lépp jaam. Omar gis nga heure bi xëy si. waaye waaye démb bi dama biddanti waaye. insomnie laa amee woon. Omar. Eh, amoo àdduna ku la yombal moo la ko te ndaw nga. liggéeyal sa ndaw pour boo nekkee mag nga mën a nga mën a noppaliku quoi di teel a xëy di guddee wàcc at sa bopp bii nii xaw ma lan nga si def comme leget. ay lox la gars yi dañoo dañ la koy jàppal nii xoolal ni mu guddee. lan mooy lox mais sa xeetu yére yi lan la. tamit dafa nice artistique na de xool xol la ñuy jël boolekaat tissu bi nii naa si andil ban couleur bu la baax na pour yow. entrée pour léegi ngay ndurul. yi du dem ak man si place bi de da ngay correct liguey so beugé ñu nekk si jamm du ma la ko waxat nak ya may comprendre allez dugg si biir nga sumé ko da nga nekk ci liguey bi. c'est vrai jom quoi. Masa? Jalan deh. Amar yaa ngi soog a ñëw. waaw ñëw na la. man. waaw garaaw maa ngi sóor a ñëw nga ne ma loo man man dama xam dara. gis nga ni bu mu na. ko dóor ah, dañ koy dóor mais bu mu noonu. c'est-à-dire feetu lay laa bi bëggoon naa cee dem de ndax faaw ak ñoom na bu ñëppay dem. non yow doo si dem.

man bo bu leg sama heure bi da ba ñu du bouger fi mu newoon sank ba tay fa la ne. heure ba ngi dem de da ngay gan ci nii rek. ko ah. moom xalaatoon naa ne mbuumu jam mom dag na bu yàgg. Omar Omar no tëj sen lamine bi nga liggey nga def yëfu góor quoi. ni grave ni ngeen dëkkee mo ah bisimilah. naga sa gan gi ba muy gor góorgóorlu. ñëw de mais gars yi RFM lañ koy wooyee instant ah. dafa ñëw rek animé xam nga lan ngay def da koy bàyyi bu liggéey li mu war a liggéey tey ba mu jeex nga dooleel ma ko bu ëllëg bi. non loolu bul si jaaxle dinaa ci def lu ma mën fi ma paa bi jaarale rek laa koy jaarale waaw yi nag ñu ngi bu baax wax dëgg yàlla ñu ngi góorgóorlu bu baax. ok si kanam dinaa la woowaat incha allah gis nga pinir boo koy def da nga koy def ko am jom ngir bu beneenee dootu ko defati waaye doo ko def ko ñàkk jom say takkaay yoo tay le nag defoo ma ko sa bopp nga ko def ndax xew lay laa baa ngi ñëw bu ñëpp tàkkee sa moroom yëpp nga lëndëm kooku sa bopp nga ko def mais pas teg maa dimbali ma jëlaat sama takkaay Dia dégguma li nga wax ma oh. dimbali la nga jëlaat say takkaay ana sa liggéey lan la lay jëriñ. sama liggéey ñàkk naa ko ndax sa jabar jooju joojo. lii laay wax sa ñàkk fayda bi sa moroomu jigéen moo lay def loo ngay def ah yow ya, doo sax kan nit. papa. oui. kaay wu si suuf penju gu moo la soxla.

ni nga def Leila ana naka nga ko mënee yow lay waxal. Leila dafa génnoon guddee ñëw may wax ak moom mu tontu ma tontu naqari deret ak yaradiku moo tax ma defee noonu. eh say doom ñoo ko gën a yaradiku laa la wax. it na gëj nga defati soo ko defatee di nga ko rëccu est-ce que dégg li ma la wax. ba nga instant du mambusu bu ma ko gisati laa la wax yow doo màgg dootoo gone magum jëmm nga tey soo doxoon ci mbedd gis ñu koy néewal doole. xanaa doo ko faj waxal xam naa ni doom ji mi ngi ci yow mais il faut nga dal même su fekkee da nekk ci dëkk am na ñooy jëfe sa dëgg da koy mujj ñàkk te yàlla chaque jour mi ñuy misaal juróomi baaraam yi dañoo tolloo yalla mi ngi ciy won dañu wara djegalante deg na baax ma ngi baax tamit si ni eh nama bëgg nga jóg dem wax ak sarak ngeen waxtan waaw baax na ah, dafa am rek lo xamanteni comprendre ma quoi moy lan motax nga bëgg may kon yow diine ngay tëkkale ak cosaan ak aada diine moo nekk au sommet yeneen yëpp ay futilité la te nag bul fàtte ne ñun ñëpp ñoo bokk yem ci suñu kanam boroom est-ce que dégg nga wax ji waaw dégg naa la laggal dem waxtaan ak sarak te lii bu ma ko gisati xew Layla bi ñepp dañ siy japp mu doon ben ndax njugal lo rek la bëgg kon nañ ñepp japp ci xew bi pour xew mi mëna neex te baax. waaw yaay lool lañuy def boo xel li nga wax nañ jaar ci yoon bi ah kon kay baax na. <laughs> man de dama lay sant rek di la gërëm ndax macha allah da nga taxaw taxawaayu kilifa te li nga bëgg ci xew mi bu sooba yàlla rek la ñuy doxal. li nga tracé ci foofu rek la ñuy jaar mais nag xale yi dañuy topp sama ginnaaw man de lenn ma ci jaaxal magale bi ñu changé. magale gan. ah magale gi ñu dindi ci loxo loxoy mairie teg ko ci loxo yi faa lii de la lay laa def. Leyla de xanaa dafa juum foofu ndax xam nga ni diggante mairie ak laa lu yàgg la sama diggante ak yaayu maire ñuy demalante di dikkalante sekk ay ndawtal sekk lu nekk ci àdduna waaw surtout loolu kon boog cër bi maire yi moo ko moom te xam naa ni Fabintu dina ma nangu loolu waaw loolu moo war a mën a nekk sax ndax nag femme yi dafa war a xool lu rafet mu di ko def ndax Layla ak maire démb la du tey kon na def lu rafet rek fa bintu dama bëgg nga may ma cër bi ndax sa yaay la te sama doom nga lepp li nga ma nangul cëru magale googu moom laa bëgg nga may ma ko ndax ñoom dañoo and and bu yàgg lu nekk xew suñu diggante te bu bis ñëwee dañuy rafetal ku nekk côté bi nga moom rek ñu daal la koy jox hmm. waaye yow lépp yaa ko moom ci xew mi lool nag ñaan naa la ko. yi xoolal mbir mi du mbirum may de taan ummi du mbirum may dañ koy fokati ndax ku nek ak li nga mom déet bul ne ma déet deglu rek ma wax ku nek ak li nga mom de yow umpale wo li nga wax léegi damay delu wat say cadeau rek leila ak meri demb la du tay depuis petit bagara wa waa nak man fami jeul yi xew mi nak yenu ko nak bok ko and ak mom di daw pour la ay adama ah, wax deug di amna yo xamne xela koy motale xel boo xoolee lii xam ne dara xaju fa bu fa xajal sa bopp waay ah. Eh. moomu li nga wax lépp dëgg la amul benn problème ni nga ko bëggee noonu lañ koy defee te noo ko gisee tamit noonu rekk la. jaay jaata kontaan naa si yow mosoo maa teg gàcce yal na sa jàmm yàgg. amiin. ani Layla. Layla mu ngi si waañ bi ak bàjjen Kori. man de damaa jommi waaye yow joojo mi waaroo yow xale yoo xam na yow bala ñoo dugg waañ rek ñu ne alxayri jib na waaye léegi laa dina ko yëg yow heure bii ngay ñëw. lan la lu xew ba may naaje. sànq ba tey ñu ngi dee ñëw ak xew lay laab nga bàyyi ba heure bii di doog a ñëw. Fabi du bàyyi ma waaye xanaa ku ñu yëgal mooy ñëw heure man dañ maa yëgal ba may ñëw heure. Mariam. bu ma ni Marème tante Oumou ma ni Marème de lu day ni Layla ñu bokk benn baay maa moom wala tante Oumou damaa bokkul ci ëttu caameen gi sama rak ma bokk ak moom benn baay. eh madame calme-toi nag. Nabou Guèye Nabou Guèye bàyyi ma. maa ngi jéggalu baal ma waaw léegi baal ma nag sa xol waa yow sa xol neexul waa baal ma waa baal ma ñu doon Layla ñu koy takk maa ñu bokk benn baay ngeen toog ni da ngeen waxtaan ni set set tante mu doxalal yëfi kilifa doxalal yëfi kilifa man ëtt bi mënoo ma fee génne mënoo ma fee génne doxalal yëfi kilifa li ngay def rafetul Marème waaw papa eh bu ma ne papa laa la wax man ngone gu joxewul cër soxla moo ko jëtu ci biti da ngeen di réunion dafa am luñ ko moñé deug la sang fi cër mo fi dox na ga ja usna ko gis tout ngeen ci yàq quoi ah. deug la ci papa berba wuyu papa bu mere ni lay def day xiiru papa di comme Hercule Hercule doon nga dégg Hercule daa ko mooñee. eh Nabou lii mooy lan. fii laa ko waxee nag fii fii laa fi yem fii nag laa ko waxee. alaaji mer na de alaaji mer na waaye de lan lay mer man am naa lu ma doy nag ah. yow ba sa naxasaale gi yow li ma la jàngal yëpp fan la jaar sa bopp. waaw bàjjen yow tamit lan nga ma jàngal lu baax. bu tayee nga wax ma lii bu subaa nga wax ma lii man koo comprendre ma dara <laughs> lépp loo ma jàngal danga koy jaxase. kon nag sa xel bi dëx na jàllal fële xooli ñaambi ji. ñaambi ji mënu ma koo xool de day dagg samay we maa ngi ni dama def manucure ba pare du ma ko xool. waaye yow kii nit la. maa dem continuer xooli bi man du ma xooli ñaambi bi de. ba tey si ba ko def si keneen bi waa maa ngi nii di bëgg dee kii jàngaluma dara lu baax. Hmm. dara lu baax jàngaluma ko ba pare boole ci dama xolli loo. Leyla yow tamit gaawal cours bii moo ëpp solo cours boobu de. waaw maa ngi ñëw mais xam nga nu ñuy def xam nga sama copine nga dangaa baax yaay sama bàjjen préféré togg bi laa bëgg nga yeggali ko ma yëg ci faa ñëwaat. Leyla Thiam dama lay dóor arrêté taxawal fii bul pousser man Coura Thiam mii may àggale cere ji lii nga xam ne daa rate. bàjjen fii lan moo fi rate. eh baaxle woo. man Kuri Thiam du ma àggale cere ji ñu ni cere àjjuma ji yàq naa ko. kenn wax loolu xaamoo Xadi Thiam léegi moom dina ma usukoo Xadi Xadi Xadi na ko yeggal. léegi laa ku la bàyyi du àggali lii xaaral ma woo Xadi Thiam jaxase ma góor gi mu dal sama kaw dama koy nangu nag ndax respect bi ma ko jox du dañ waaye leneen tamit laa bëgg nga xam ne du mus a dañ sama bopp bi bis boo dof dof la ba sëy ak Babacar Mbow na la leer ni sëy boobul dëgg la ko. yow dama ne nga noppi ndax awma pour déglu la ndax matoo li nga doon boo matoo li nga doon di nga yemale say jabar doo jeng amoo benn personnalité ci sa bopp. da ngay bàyyi ba mu eh, ne. dama bëgg nga déglu yow seytaane bu bon nga yow lan nga ma def yaa ma may joojono tourné di ci wax afu naafeq yi yow doon nitu dara. man wedduwuma ne maa la présenté joojo waaye bi ma la présenté joojo jubluwuma ci woon lu bon lii nga ciy def dama yaakaaroon góor bu baax nga góor bu mat kilifa nga waaye matoo li nga doon dangaa manqué wayat xajal ma man ma jàll.

2017 dal Hall at Punch, ak punch c'est une série Babel Optez pour un climatiseur de classe A++ et adoptez l'économie d'énergie dans votre style de vie Sénélec ak Woyofal énergie yaxanal se poche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 global textile Asenfal Parcel à unité 12 Tu es tout ba day gros à demi gros. Johanny Couture une belle tenue augmente notre confiance en nous. Ah, ma chère, il y a une minute absente, ça va xanaa sa dire là non tu es sûr que ça va. ça va..! Tu sais qu'avec le monde des tu pourras toujours me parler. On a un problème, Yoyo. Il y a lu muy def ak bàjjen koor yi lakkale bay bëgg dee di ma toggloo te dara mënu ko léegi nag comme ñëw ngeen cours bi mën naa commencé damaa dem si mère mu yàpp ma ba ma fees del del del del del bu toog tegu si temps ak ak heure moom laa leen indi maa la wóolu de lay laa ci yow laay commencé déjà

Kabarin baa dinga ko caw waaye lii lan la vurut baraj foo xamee vurut baraj Layla waa tali ma dama koy dégg ci xale yi rek xale yu pare yi lii tey mu dee de bi my body waa nga body Chokotan. Tengah diw rek sa yaram di cokotaan jël dooma rayda am léegi suñu awa Cheikh couleur bi ma la amal. dégg naa yaa jiite xew bi kon yaa fi nekk daal di joxe ay kóoru jonge il faut mu ñëw bokk parce que man dama war a changer sama logiciel. bokkuñu application. loolu moom dëgg la parce que yéen version ngeen. awa ah chérie yow wuyu ma gis nga su ma la coaché dootoo amati défaite jàppal ni ma woon la. waaw parce que affaire yi daal dernière fois ma ko fiy jéem xas ma ci xas <laughs> a waa Louga. xoolal awa ah man du ma ànd ak kuy ragar wala kuy daw de te ku ma coaché tamit doo ci jëlee lu dul ndam fii kenn doo nga fi miin defet muy Nabou Guèye. mais awa ah Cheikh tu n'as même pas le te ngaa jafandu rek ci lii. ah waxal de. baax ma. balaa Awa Cheikh waxal ak man mi nga xamantene nouvelle mari la dama len wara a sagal de waruma dem ba fofu di leen indil gatcha de xaw ci dara. be man a dama xat ci keur gi tay mu ñew bëgg wax ak ñoom faa ñoom Awa Cheikh ñu taf ma def seen coalition nek di wax di defante il faut nga ñu dem. loy wax be li nga xam nga lan lañuy def ñuy jog ñu dem keur tuddu fofu ma defaral la ñor moom mo gën parce que fi dama fay xat. wuyuma bul def lolu tay leer na la ni gor gi mi ngi fi te awa cheikh mo ay vraiment tey mënuma sori kër gi. yow bi mënu bay suma ma la ni rek nga nan ma gor gi gor gi ba kañ da nga bëgg ma dis ci kër gi alors que dama xat ñu awa cheikh dama eh, xéer eh, eh, lo dal Père Ndiouga bu Père Ndiouga kan lay wax hein attends sama téléphone moo si xaar sax ba léegi ngay toog ba jamu waaw jamu la dama laa soxla kaay toog radieuse.

selamat. مع وكذا bonsoir les filles waaye E eh eh eh yéen a ngi ma de ah waaw ku la invité nak? yow defeyaa nga defeyaa bu manga yow yow lu toll ni sa beus ak man ni ma la beugé ni ma la fonké. ah ngay def lu toll ni sa entraînement de la fille mu adit entraînement entraînement de la fille la wax la la lan moy problème bi

xool ma ci temps yow xool ma ci temps li mu woote rek laa joxe waa léegi yow mii suñ la waxoon dafa roulade en en arrière car euh, nu mu tuddati jambe écarté ah ma roulé boo roulé ndar ndaw ay la xal illallah yow mii boo roulé musibaam bi ah yow soxor nga eh na biir waaye li na neex nañu ooyo eh ooyo ah, yee yaa balaram pam sawbulla ndaɗali haalay men anda ɗali anda ɗali orang fouta rendang rendang rendang rendang rendang rendang rendang ñàkk orang xam wóoru je veux te parler kii dama ko bëgg yow ay waay mais sew way yow yow ko nag yow sew na yërëm bi di da koo fant ba jakkam xale yey bandi Oui, naa ça. ni écoute je ma eh, la expliquer comprendre mais tey tey sa bis la non dama tu semaine bi tu mais, nañ wax ci Tu dara tu may expliquer. Hmm mënoo bàyyi soo amee problème rek di laqatu tu te caches braqué pour lan sa jikko bu bon bi nga am mënoo ko bàyyi mairie hmm? man xamna né ni nga mel mais war nga ko mel ak ñepp bu mu man man je suis ta meilleure amie ta pote bëgguma la woon mettre à l'écart en fait mais c'était vraiment compliqué mais xolal franchement bima ma sa mariage bi non dafa mel ni thérapie ci man en fait dama ko yëg rek tane. je me marie tu te maries. waaye <laughs> yow. Mm. yàlla moo tax nga noonu jël sama cëru magale bi di ko tayle. ah mais oui ok ko si faa rek xale bu am jom. <laughs> je blague d'ailleurs sax nee na ma yaa doon audité Khalil. si si. donc yow a bi may wax ak yow téléphone Khalil nga doon nga waroon audité et pourquoi tu m'as rien dit mais non C'est un secret professionnel ne mon mais xalal géré nañ Maintenant tout est tranquille et pourtant tu peux tout me dire on se sait euh... allô bébé tout se passe super bien je suis trop contente

yaay xanaa gëmutoo yàlla <laughs> yaay su daan feebar nga naa ma noppel lii dina jeex yaay li nga dund yëpp bés dina ñëw dina jeex te yàlla duñ ko gëm rek yam ci dañ koy wóolu yaay noppel may muñ pour yow ak sama Insa moo tax sama àdduna ben bëgg-bëgg rek la ci am moy réussir sen éducation su ngeen màggee ngeen mëna sen bop ngeen nek ci condition yu baax ba doo leen ñee seen benn morom tout tëddim tout tugul yaa kan est-ce que mën naa tëdd bàyyi la fi yow kese Mustafa nga dem demal glace Pape Ndiaye fi fekk demal. naka bi ñëpp doon xaar. ba yàqalu ma leen rekk non du tout yàq lii laa da yàgg. dëgg la dañoo yàgg te lu yàgg dëgg la. clairement looloo waral sax yenn sacrifice yi. Mhm. léeg sax ngam loo xamante ni bëgg nga ko nga xañ ko sa bopp ndax li ngeen sekk. loolu mooy ànd bu dëggu. <laughs> mun nañ wax sax ni ko yéen ñaar ay sër ngeen. par ailleurs Sourou Khalinga, nga Bakir Ibnu Sadir ñoom ñëpp say frère lañu. Ouais. on a de très bons rapports. a leer. sinon naka liggéey bi Ibrahima mi ngi ma doon wax que ni da nga bëgg crèche ça avance. oui à merveille quoique je ne serais pas mal en tant que scénariste. scénariste ah oui j'ai fait une formation en psychologie de l'être humain loolu les scénaristes c'est mon truc vite fait nii rek mais imaginer la belle histoire et tu sais quoi j'en ai une Ben am classe indépendance am jour am voyage d'affaires dem ak way, bu muy merci mais pas de bol mok magu waji ay xarit lañu ndeysaan pour xex loolu muy tëju di beru amé ben dépression ni vite fait lépp pour xex li nga xamanteni mom lay yek ci bir xolom bu sañoon tay jii du jàkkaarloo ak man mi jabaram attends doo ma ne yow ya ñew sama kër sone daw bay fa sa carton d'invitation attends attends ne me dis pas que yow as créé li Pour de pour ma ñëw fi jàkkaarloo ak yow de yow ban genre psychopathe nga du genre rare je dirais je n'ai jamais dit que j'étais venue chez toi ou que Malfa pas le carton d'invitation je ne dis pas non plus que mon mari est très bel homme séduisant charmant intelligent waxuma loolu lépp ok je vois que tu es <laughs> mais kaay ma xamal la dara gis nga fo ñaar ñoo koy séq te man ñu fa xale yi dama ko dépassé duma sa morom te duma sa maas. Hmm. ak kay dëgg yaa ma mag mag sama jëkkër. mam naar bàyyi ñu baal ñu yërëm ñu ñu dund suñu jeunesse comme ni niñ ko bëggee xam nga yow màgget nga eh eh xool xool xool maam naar bul mer s'il sa kanam baa ngi sens instant bii nii xoolal kenn xamatul looy ndugal yaa ngi xonk cuur damay bañ nga kaar jàkk xam nga sa xol bi dafa oyof loolu moo tax màgget nga génn si li nga nekk.

yow enjoy sa any time rek te amoo bébé aw ma sa fay teral nga ma sagal nga ma samay diggu naaw lay Babacar yow soxna si da nga ko mënta wax dëgg xanaa yow li fi am xam nga ko bi mënta nekk wax ko

Oh, cher. Ça va L'œil des filles ah, cher avec d'été, problème ba la nga ci de di à 7 heures de la nuit dans le noir qui plus est Tu nga a partager sa souffrance quand je suis une femme comme toi et peut-être même que je souffre en silence. Toi, vois, di as Jojo à Jojo un bien Jojo sama m'a ça sama m'a Ah Awa cher, je te repose la question lan ngay def fille. pendant que Jojo ak Sadir tëdd sa ça lal di def toi tu es là à pleurer au kese par terre en plus pour lan Qu'est-ce que tu as comprendre ça, ne comprends pas la parce que ce là, là c'est un sang sanguin. si tu tu en perds ta dignité et à partir du moment où tu la perds tu n'as plus de raison d'être gis nga bu la leeree ni yaa ko fa am nara jaral sa bakken nga reyante te julli ji ko